defal ko alhamdulilah rabil alamin mais confiance bi nga xamante ne tey population parcelle bi am nañ ko ci monsieur le maire gis nañ ni tey lépp yëngu-yëngu boo xamante ne mi ngi am biir parcelle monsieur le maire toogul siège am moom mooy jug sol dab dàllam ànd ak ñoom ci liggéey waaw loolu mooy yoon parce bu la population yi falee deux fois maire mais desa desalul duñ la dara donc suñu bëgg a toog sa bureau amul pour man amul sens dañu war a ñëw donc ah comme ça ñu mën a jëlale ñu mën a xam aussi li nga xam ne moo amoon démb li am tey mu préparer ëllëg donc loolu dafa am solo ñuy teew ci population yi ñu ñuy sentir mhm. ñu ñuy gis loolu yaakaar nañ bu ñu ko defee rek affaire dina dox yaakaar ne toog sa bureau rek doo xam dara mhm. waaw di nga am peut loo xam lu tuuti mais li gën a am solo mhm. mooy nga dem sur le terrain terrain moom lépp ngay gis di nga xam bâtiment bu toj bu bëj di nga gis ku jub ku jubadi kuy def lu baax kuy def lu bon safaan bi et cetera da nga gis daal parce que loolu mooy réalité terrain mooy réalité bi bu terrain amul amul njëriñ. Mhm, bu ah. ba taxit tey yi gis nañ changement bi am parcelle. waaw ah, ngi ñaan yàlla mu jëm kanam. Mhm. bon temps yi nag ndoxu ak population ak quartier yi nga xam ne ñoom la concerné. ñu xool yan solution la ñuy jël pour que bu déwénee bu ñu ci yeggee coono yu wàññeeku. naam lépp mënul saafarawu. Mhm. ndax dafa am ay ay ay ay jafe-jafe yoo xam ne il faut ñu teggi leen ba pare mais gëm nañ ni quand même dinañ ko régler en attendant ñu ngi pomper ñu ngi curer. Mhm. ñu ngi sur le terrain ñaari weer a ngi nii presque génnuñu dëkk bi. Mhm. du ñu nelaw du ñu taay donc parce que loolu aussi il faut ñu def ko population yi am soulagement. Mhm. dëgg la pour def ko population am soulagement jërëjëf monsieur le maire ah. yaakaar naa ne kàddu yooyu nag la amoon mu waroon ko dénkaat askan bi ah jërëjëf Ali dañuy dem xoolaat ñeneen ñi nga xamante nag ñoo nekk ci biir bâche bi di waajaat